jërëjëf sëriñ Abdul Majid mbakke ci kàddu yu am solo yi nga xam ne mm, yëkkati nga ko ca man cee jànge lu bari ci jëflante sëriñ Sohaybu ak doomu adama yi waaye itam nag ak am xelam mu rafet ak jiitu gi nga xam ne ñoom doomi sëriñ Tuubaa yi jiitu nañ ko jamono e, kon ñu ngi lay jaajëfal baax di la ñaanal suñu borom doole la kàttan ak wér di gën a jaajëfal baax commission culturelle bi nga xam ne ñoo yor liggéey bi ci njiitul sëriñ Abo léegi nag ñu ngi toog ak koo xam ne bi ngeen jàkkaarloo ak moom rek daanaka jëm imansam rek présenté na jëmmam présenté na itam jëfam bari na ñoo xamante ne bii ci làmmiñu sëriñ yi bu lañ xamee jëmmam moom lañ teew fii nag ci këram tey jii fas yéene ànd ak moom taatan ay kàddu aoudu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ñu ngi nuyu mbokk yi fi teew di gërëm di sant njabootu Cheikh Souhaïbou ñi leen fi yebal ngir ñu waxtaan ci sang bu tedd bi thème bi nag liñ ma ñaan mooy ma wax sëñ Souhaïbou ak wér gi yaram waaye kan mooy sëñ Souhaïbou mooy kenn ki nga xam ni ci doomu sëñ Touba yi la sëñ Touba batale woon ko alxuraan alxuraan nekk téere bu nga xam ni bàyyiwul dara ba tax na sëñ Tuubaa daawoon na ko tàgg moom alxuraan di ko wax ni yaay sama wéttal yaay sama trésor ci yow laay fajoo fajoo googu nag ci la sëñ cooy bu moom dugal mbiram ba nga xam ni avant événement yi am rek bu bu eh, sëñ Abdou Lahad ndax sëñ Abdou Lahad li mu jëkk a def gannaaw bu mu taxawee toog ci jal bi mooy ni na fi dispensaire am ndax lan nit ki mënut a liggéey wala mu jàng ndareedu dafa am wér loolee nag ñun xam nañu ni ci conseil yu rakkam ku ñuy wax Cheikh Chouaïbou bu la amee ndax sëñ Chouaïbou bu da daan faral di yóbbu ay malade ba Mbàkke ñaari yoon ba ñetti yoon par bés muy dem ci docteur Fall wala réem xaritam waaye bi nga xamee ni magam toog na la mu ko njëkk a xelal mooy na defar dispensaire ci Touba loole nag mi ngi am diggante fin 69 début 70 sëñ Abdoulahat ñaan nguur gi nii nañ ko jox hôpital la jëkk wax waaye hôpital dañ ko teg ci kaw ay chart ak ay budget ñooñu ñaan ko ni ko léegi dañ lay indil ay docteur nga seetal nu foo leen mën a nekkal bu ko defee ñu door laa tabaxal hôpital bi nga xamee ni ñëw nañu ñun en 70 début 70 sëñ Abdou Lahat ñu ngi ñu amal dispensaire ci marché ocas booba magasin la woon bu nga xam ni Euh, magasin témoin la woon ñu ko wax Sonadis boobu boobu Sonadis moo amoon kaka moom woon mujj bàyyi sëñ ab laat jël ko jox ñu ko bon ci biir loolu Cheikh Son bi wanewaat na beneen mbir ndax xam na ni hôpital wala poste de santé day jëre nit ñi tey fii ci këram kees gu jëkk gi fii jakka ji nek te am né bo xamni ne sëñ Abibu mo fi daan def jàngale xam-xam dafa benn yeewu benn suba ni ma man dé doon sama sago bu màggalatee dispensaire jege ma ndax seetlu naa ni oto bi bu génné bala mu ñëw rek day yag lool té dañ koy soxlawaat ci digënté bi man ko nañ ci waxtaan ak médecin chef régional bi ko ku ñu wax am merci mo fi nekkoon mm-hmm. Ahmed nangul ko ko xamal ko ni ko itam maay maa joxe dotation bi sëñ bi tekk ci ni ko bul indi personnel jox ma anis loolu 79 la bon nag 79 ba léegi poste bi nekk ci jàkka ji ci bii këram ci kees gu njëkk gi mu ngi dox léegi man dem naa ba nekkatuma fa waaye sama doom bu ñuy wax Abou Chouaïbou moom moom moom moo fa nekk. mel màggal yi ñu demandé poste avancé. moo ko fa jëkk wax. moom moo ko njëkk xalaat <laughs> waaw moo ko njëkk xalaat <laughs> moo ko njëkkal xaar. moo tax ma ni ragal naa ni itam moo xelaloon si ñab du laat ni ko dispensaire mënu fee ñàkk. Mhm. ndax nit ki mënut a wér. wasalaam mënut a aussi jàng. te amul wér. Mhm. waaw liggéey ak xam-xam. il faut nga ànd ak kii. loolu moo indi tey sëñ sooy bu taxawal loolu bon sëñ sooy bu yaataloon na sax loolu ci yemul woon sax ci nit ñi ndax xeet boo xoolee mbiram bàyyi ma yi ak njanaaw yi sax boole woon na leen ci loolee loolu ñun ràññe woon nañ ko ci moom mu koy jëfandikoo loolu tey moo waral ma wax ni dispensaire bi ci xalaatam la jóge mu xelal ko magam Cheikh Abdou Lahad Mbacké 1969 euh, fin 69 début 70 ba léegi ñoo ngi ci loolu yow kañ nga xamante ak moom ak seenu xamante fan la jaar waaw sëñ bu ñoo ngi xamante euh, xamante bu yem 65 boobu laa ñëw Mbacké waaye booba xamante gi itam dafa laloo may ànd ak docteur Fall di ko di ko ziar si te bu ma ñëwee dama leen di may waaye bi ñu ma affecté bi ma affecté Missirah comme chef de poste en 68 ci la suñu jaxasoo yàgg tàmbali. waaw boobu kenn ci taalibe yi daanaa ñëw ci ci moom di waxtaan sama mbir ba mu ni ma ko ba ni mu ni sëñ boobu na na anis ñëw sëñ ba itam du ma ko ñàkk tudd muy góor gi Malick waaw moo ñëw gis si ma li ma sëñ bi kat bëgg na la gis. 68 la lañu tàmbali jaxasoo dëgg-dëgg. Mm-hmm. waaw 68. Mm-hmm. bi nga xamee ni itam affecté nañ ma fii rafet naa njort ni dugal na ci kàddoom. Mm-hmm. parce que ma booba ñaanu ñaanu ma mis ñaanu ma ñëw. te itam boobu dispensaire amu fi pour ma mën a ñaan. <laughs> waaw man ma waaye bi nga xamee ni médecin chef bi woo na ma ni ma daal mënut ma ne ko ah foofu amagul dispensaire mu naa si demal rek <laughs> demal rek. bon nag ku ñuy wax mbay gay ñaar la ñu parce que poste bi déjà tàmbali woon na dëkk bi tàmbali woon na rëy. kenn nit rek mënu ko woon yore. mbay gay ak man ñoo ñoo fi ñoo fi ñoo fi jëkk def. waaw yow mas na laa jox malaat. nga xam ne bii malaat mën naa am yow ñàkk nga ci yaakaar waaye dem nga ba yëg ne baati baati dugg na ci daana jëfandikoo ak yow loolu ci wàllu. waaw waaw waaw lu ba moom koy dimbale na ma ci lu bare ci waaye bi may gën a jëkk kii rek mooy am na góor gu daan wax euh, góor gi Matar Diop. astafurlah Fallou Diop Matar. Fallou Diop Matar wëllëre sëñ Abdou Lahat la woon dafa mos a feebar Dakar ànd ak sëñ Abdou Lahat ci tukkeem mu daan def la Dakar di jege jege mes ak médecin yi la ñuy bare bare sëñ bi da ko mu ñëw Touba bi mu ñëwee sëñ bi woo ma ah, sëñ Fallou kat ñëw na ma ne ko dafa mun dafa feebar ma nga ca keesu garab ga ñu dem ma xool ko ñu ko waaw mën de gis naa ko waaye moom de feebar na mun waa nañ nañ ko nañ ko seq rek nañ ko seq waaw bi nga xamee ni taw nañ ay fan góor gi dafa yor tele te man xam naa ni booba mbirum mbirum boppam moo ci dugg bu baax a baax a baax muy bés boobu sax na ci góor gi ni ma parce mu mu bu mu tane ba tane dafa ñëw woo mu ñëw toog ca keesam nga ca mujj di fataaya ma ñëw mu ni mu ni mu ni sëñ Chouaïbou damaa bëggoon nga seexalal ma anis <laughs> mooy Fallou Diop Matar waaw moom gis naa ni sëñ bi def na ci ay baatin yu rëy rëy ak ñeneen ñoo xam ni nag mënumaa tudd seen waaye xam naa leen nii rek waaye xamuma seen waaye kii moom lu ma xam ci loolu moom bokkoon na ci <laughs> kon moom bi mu la indee Touba mhm. euh, ñu affecté la fii mhm. daan na ngootu ni affecté waat la feneen wala état moo la mujj bàyyi fii rek waaw moom moom loolu feeñ na ci itam ndax dafa am jamono ma waxtaan ak sëñ Abdoulaat ni ko dafa am euh, tawatu gémmiñ yu bari ci tund wi surtout ci daara yi te ñu seetlu ni ñun mënuñu ko te dañ leen di yebal njaareem léegi dama bëggoon euh, jàngi ko bi ma nee dama koy jàngi mun ma nuñ koy defee ma wax ko nuñ koy defee mun ma baax na daan la ci ñaanal yàlla def mu àntu ma dem jàngiwaat ba jangé ba ñew poste bobu jurbel la waron am waruma won ñew fi waye messager ba fa nekkon amet ci toujours dama accéléré mun ma yee eh, sa décision ñëw Dakar waye demal demal Touba sëñ bi nee nga ñew nga xam nonu <laughs> la waye nak mu mun ma boo demee itam danaa leen dimbali ci matériel bu nga xam ni da nga ci mëna jappandi jàppandi ndax mëna doxal sa sa xam-xam bu nga fa jangé mom am na si moomu moo tax moo tax ñoom daanaka ñoom ak pando bu mënu won dem fenn bi ko ñaarel mi ngi jóge seigne Abdou Lahat ak suñu ben ndax dispensaire bi yëngatu won na fi ci jamono seigne Abdou bi ko defé ba yëngu fi yëngoo ba yëngu seigne Abdou dafa woo gouverneur wo wo préfet ni ko dégg naa dispensaire bu yëngu na waaye affectel ma ñëpp te bàyyi fa anis affectel ma ñëpp waaw te bàyyi fa anis <laughs> loolu itam xam naa ni bokk na si nga xam ni lu ma tënk la ba sama papa itam am na lu mu ma a wax dañ ma affecté fii mun ma fonctionnaire de xam na seetlu naa ni fu ñu dem ñaari at ñett ni dañuy dem waaye yow bu la ci fekk bul ñaan fenn toogal rek waaw toogal bul la affecté nag loolu waaye bul la affecté toogal <laughs> sama wax na ma loolu waaw waaw waaw ni ma ni ma euh, bareyaan ne fonctionnaire am dem ñaari at ni damay damay tafa damay laaj feneen mm-hmm. waaye bu la ci fekk toogal rek <laughs> waaw waaw léegi tamit ci wàll boobu ndax yow mas ngaa am benn jafe-jafe mhm. bu ci kër sëñ Souhaïbou bi rek ndax dafa mel na nga daan boole dispensaire bi ak kër sëñ Souhaïbou bi waaw waaw waaw sonn lool ndax ndax sëñ Souhaïbou yi mu daan jëfandikoo mhm. ci ci wàllu diggante garab yeeg mhm. yee ci ajo yi yooyu ci dispense bi la daan jóge wala moo ko daa wutal boppam waaw moom dafa jaxasoo woon médecin yu bare ba tax na lu ci bare ñoom tam daañu ko woon nañ ko jàppale daañu woon nañ ko ci jàppale teewul nag daa woon na jëndi garab bu ñëwee itam fexe na ba xam garab yi lan lay doon te ko wutaloon ñeenti sawla ñetti euh, armoire nga xam ni man ak maam Balla ñoo ko fexe woon ba def ko abajata nga xam ni tey moom bu ko soxloo rek dana xam ni garab sàngam fii la féete waaw biñ ko defee defal ko ko abajada saa yu soxlaa te nekkuñu fi wala Balla nekku fi moom dana xam garab sàngam fu mu féete waaye li si gën a importance mooy loolu moom dama koy jox ñi nga xam ne ñoo ngi jaay garab ci mbedd yi da daan fexe ba nga xam ne garab yi nga xam ne seen date de péremption jege si na daf leen daan wutal kees bàyyi ko ci wetam ndax bañ rek garab gi yàqu mu jox ko nit hmm. loolu yi itam fàggu woon na ko kees xam ne yi waaj périmé la ci def waaw la ciy def mhm. boo tax xam nga ni kooku moom du périmé du ak du périmé ci loxoom ah. ndax xam na dèjà ni yii mi ngi bëgg périmé ah. bon nag ñuy jaay garab ci mbedd bi te xamuñu prescription ci garab mhm. ñooñu nag sëñ soo bi tam wax naa ak ñoom mhm. wax naa wax naa ñoom wax naa ñoom mën naa am ñoo xamante ne bi dañuy feebar waaye duñu feebare ci kër gi seen kër la ñuy feebare daa mel ne yu mel noonu daan la ci yebal yu bari nga xamante bii waaw ñoo néew doole rek. waaw waaw wala yu demee waaw waaw. danaa xale yi ni leen euh, euh, euh, oto bi ma jëkk am. sëñ Tuubaa laa dem ñaan ko ko ndax booba xam naa ni dox bi metti na ci man. 72. la la la la am benn oto bu nga xam ni. da dañ ma daan yebal ba gédee may dox gédee ba gédee te dama ko daan dox boo ma ñëwee nag sonn ba jumaa ji bañ a àgg suba ko mu ne liggéey la wax damay tëdd si jumaa ji di ñaan <laughs> sëñ sëñ bi dama may oto oto boobu nag laa yore lu yàgg yàgg nga xam ne moom sax mu joon na xam corne bi maanaam sab gi da nga wax ku ku bu yëmbatoo mu mu ni dama nga gàttandu anis dafa mel ne moom mooy sab te biti <laughs> bon nag ça veut dire bon fu nekk yabal na ma fa mm-hmm. waaye wax kam nga di ko wax gede te boobu diggante bi barewul ay amul amul àll rek la woon amul woon tëli waaye dem naa fa ay yoonu yoon ci mag ñooñu mag ña mag ña daara yi itam amoon na fu nga xam ne sëñ Kanji moo fa nekkoon yebal na ma fa ba tàyyi pour ma seet beleel la même chose ndax boobu sëñ Cheikh Say ma nga fa. kon xam naa yu mujj rek. Mm-hmm. Mm-hmm. léegi yan yan jikko nag bu ñu la doon tànn ndax doomi sëñ Tuubaa yëpp nuroo jikko. waaw waaye kenn ku ci nekk am na jikko bu la gën a marqué ci moom boo xam ne mu ko tuddee rek uniquement ci la sam xel di dem ci sëñ yi. tubaarkàlla ku lewatoon la ku noox a jaxos lool mosuma gis ci kanam mu soppi ko te presque plus de 20 ans nekk nañ ko ñëw moo fi gis mu soppi ko mosuma ko gis yàlla xam na ko wallahi wan ku lewatoon la ku yaatu woon la ku bëggoon njëriñu nit ñi la danaan def bu la bu la bu la ñëwee ba nga faju ci moom wala keneen faj la waaye mu yëg ni tawat nga da fay fexé ba nga ñëw ci mom mun la lan ak lan nga nga daan liggéey boko né bay la da na la jox jiw jox la lé ca war yenn saa sax mu may la fas ak machine surtout nak su mbokam yi nga xamni ñoo joxoon ba ko ñooñu defal na lé ko ma gis ko ba tay xam nga lolu bu la bu la fajee ba noppi nag jox la njëriñ lu nga xamni la gis bi da nga mëna liggéey liggéey <laughs> bon koku mo résoudre le problème bu rëy rëy rëy rëy bon nak da daan fajj di ba noppi di def euh, insertion sociale. xoj moom sax gën a gaaw. <laughs> loolu daal la baaxoo woon di def lool lool lool lool lool. loolu tubarkàlla. ndax daa ngeen faral di waxtaan nii ci ci yoon wi wala muy waxtaan ak yow ci Sëñ Tuubaa wala muy waxtaan ak yow ci àdduna. man nag awma chance am loolu. Mm-hmm. vraiment xaw ma daal lan la xaw ma daal aussi daal dañ daan fekk ci yeneen yu yitte waaye. mosuma aussi nangu wax sëñ Tuubaa itam dafa mel ni lool la dafa mel ni parce que mosuma toog mënu ma sëñ Tuubaa nanga mm-hmm. xanaa benn rek wax na ma ni ma ci ma bi ma gën a nekk xaleel sëñ bi mos ma sant ni naa ko ñaa ko jox benn kees moom moom sëñ Sow waaw mm-hmm. mu ne ba ma ko yëkkati mu xaw a ci man nee na ma dellu si munu mu munu ma ko indiw la ma ne ko daa diis munu xanaa wax bismillah rahmaani rahim dem nga wax ko te ñëw <laughs> nee ma dem def ko wax te dellu si fat sax yanu kii bi indi ko <laughs> waaw moom moom moom da doon jàngale da doon jàngale itam seetlu laa ko ci moom da daan wax kenn ci xale yi kaay jox ma téere sàngam ci bopp bopp lal ba waaye dama ko jàppi demal nga ah, kooku xam nga man man fi toogoon sax dèjà man xam naa ne waratuma laal kaamil te te jàpp ma. dëgg la ci loolu ci njàngale la daan la daan def. Mm. la daan def quoi. Mm. gis naa mm. na ko. Mm-hmm. ñi wax ni daal nit ki wér-gu-yaramam mi nga aju ci nag mu gën a fonk ak cetam. très bien. waaw mel na it loolu suñ sooy bu. waarkàlla. waarkàlla mm-hmm. loolu la ñuy wax prévention. Mm-hmm. dinaay wax ni yenn saa yi bu la mosaan jóge boo mosaan a rëcce rek euh, daayira xudóos ba ñëw ci ñëw ci keesam gi lépp luy tilim wala mbalit doo ko gis déedéet amul woon loolu nga xam ne ëllëg si bu fa bu fa nekkee daay tàppe ci àll ba ñëw lakk kël gi amu fa woon loolu moom fexoon na ba mu maase am ñàkk waaw bu yàlla defee nga dugg ci biir kër gi itam bant yi nga xam ne mu day jóge ci garab yi sax doo ko fa gis waxuma laa xob yi foofu fekkoon na mag ñi jigéen ñi fa nekkoon ci àngal ba ci koñ ba daa war nañ ko def te bu alxames itam xale yi xam ne seen tey jàngu ji dañu nekk ci bër ñoo daan far loolu encore continuer ko bon dara daaw fa tax booy dox ba dugg ci keesam da jëkk frappé mooy lu weex la mu daan sol ak yiw ga parce que yiwoon loolu tubarkàlla loolu boole ko <laughs> cetu yaram waaw nga xam ni <laughs> da lay wane boo boo gisee kii da nga xam ne la nekk ci biir yëpp set na daara jaag lépp noonu lay mel xale yi noonu lay noonu noonu lañ daal mel mm-hmm. waaw lolou mom lu ma setlu won ci mom la ci walu ciet ci euh, ciet aussi xel esprit waaw ndax dañuy wax euh, mm, l'esprit esprit dans un corps sain mom do dan fexe ba lépp luy bruit du am ci bir biir kër gi bruit ba lépp lay yóbbu musique radio lenen ak do do <laughs> doo fexe doo boy sax xel day dal bon lo jang day dugg ba noppi euh, nanguwul yooyu yooyu yooyu am fa ndax xale yi dafa doon bañ seen xel ñu fukk dara fukk ko xam nga loolu déjà boo amee ci environnement environnement bu day sell lool day sell lool quoi waaw day sell lool <laughs> waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wal barakatu xanaa rek di sant bu baax a baaxati surtout commission culturelle bi di sant itam Sey Fallou disangka eh, sudi sering sudi wasila sin syah sai di japan dal gumu japan dal ni wah ni def ay di ti syah sumay bu tabarakallah wassalamu alaikum warahmatullahi taala barakatuh. <laughs>